ahousubillahi mina seytaani rajimi bisimillahi rahmaanirahimi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonentam ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam fooy man nekk ñoo leen di ziar di leen ñaanal jàmm gudd fan wér-gu-yaram xéwal gu yaa defar àdduna ak alaxira rawatina yéen njabone ci daaru salaam sifaahu daaru salaam sifaahu dana seet bu la wax la sa sarax wala wax la sa cangaay foo ma dem defe ji fa nga dem defe ji ko fa vidéo bi nag ci wàllu cat la jëm ñoo ngi ñaan nag képp ku ko jot na nga ko partagé ndax cat sonal na doomu aadama cat moo gën a bon liggéey ci nit cat dana yàqal nit ki daraam du su dox lépp mooy bloqué kon yàlla na yàlla musal ci cat Daaru Salaam si waaw dana seet bu la seetale wax la sa wala wax la sa càngaay foo ma dem defe ji fa nga dem defe ji ko fa xaatim bu yéemali ci wàllu cat te gaaw na ci loolu ci wàllu cat nag xaatim bi nag boo ko bindee nii gis ngeen ko ni ko bindee nii ngeen koy binde boo ko bindee pare xaatim baa ngi ni waaye da ngay bind aay bi mu wër ilayhi yasadu alkalimu tayibu wala amalu saalihu yarfahu loolu ngay bind mooy wër a bi boo ko boo defee xaatim gis ko ni moo ko wër aay en même temps tamit da lay yëkkatiwaale bu pare boo sangoo cat pare da ngay gis xéwal de boo nga sangoo xatim bi day dini cat da yëkkati ci sa biir moroom kon lu am solo la boo ko bindee gis nga fii mooy baytu fii ngay def sa yow yow ko war a jëfandikoo yow mi ko war a sangoo fii ngay def boo tuddee muur da ngay bind fii muuru boo tuddee faatu da ngay def fii faatu kon loolu tamit leer na nag dafa am ne leen la may àndal nag boo bindee xaatim pare ban nga def ko saafara pare da ngay wut ñetti làmmiñi bëy yu bokkut ñetti làmmiñi bëy yu bokkut kooku boo demee ci dibiteer yi da nga koy am bind nga xaatim bi nii bind aaya bi ba pare da ngay wut ñetti làmmiñi bëy yu bokkut kooku wutee da nga koy def ci saafara si boo pare tamit da wutaat juróom-ñaari këriñ yu tàkk këriñ yu xong juróom-ñaar nga ji set këriñ yuy tàkk ne ca taal ba wala nga boyal sa këriñ ba mu bari lu toll juróom-ñaari nga boyal ko mu xonq cooy ci saafara si kon noonu lay doon eh, te boo noppee nag këriñ luy loola danga koy def sunguf soo noppee suul këriñ la ak làmmiñu boy wa gaaw na ci cat lool lool lool lool lool lool lool macha ak jee gaaw sax kon boo bindee xaatim bi bare nga wërale ko aaya bi mooy ilayhi yasadu kalimul tayyibu bu ko fàtte nag sa tur ngay def ci digg bi ci baytu xaal bi foofu ma bind ismu sa tur nga ba ma fi nekk kii jëfandikoo xaatim bi mu dem ci dibiteeri mu jaay ko ñetti làmmiñu bëy yu bokkut ñetti làmmiñu bëy ba pare day wut juróom-ñaari këriñ yu tàkk mu fay ko ci biir saafara sangu ca ñetti fan wala juróom-ñaari fan ci jël baax na bu ko defee ñetti fan doy na sëkk bu pare tamit nag këriñ li yooloo ñu juróom-ñaari këriñ da koy génne dëbb ko ba mu nooy def ko sunguf su noppee mu suul këriñ la ak làmmiñu bëy ba lay boolewaat suul noonu këriñ li nooyee maanaam lépp lu ko dana gàllankoor noonu lay nooyee ci kàttanu suñu borom tabaaraka wa taala waaw sànni këriñ la boo sangoo pare da ngay dindi këriñ li loolu foog nga dëbb ko ba mu nooy nëpp nga boole ko ak làmmiñu bëy ba nga gas ba mu xóot na nga door ko suul noonu lay demee moom kon ñëw leen ziar leen ñaanal jàmm di ko sàkk ci yéen rawatina yéen ñi abonné ci Daaru Salaam si waaw wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.